tey suñu daje bi nag dafa nekk si liggéey yu ñu dénk maanaam suñu liggéey benn fànn bi mooy topp ak natt tey dañ fi daje pour natt ngir benn programme bu ministère de l'éducation di déroulé ñu wax PADES mooy programme de développement de programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal maanaam benn tëralin la bu nga xam ni dafa ñëw ngir ñu gën a ñoŋal njàngum yi ci biir daara ji tey liñ fi dajale nag euh, dafa nekk ci benn mbir bu ñu ba xale yi gën a am résultat maanaam seen jang gën a ba tax na tey dañu fi nekk ngir tàggat ay jàngalekat yu nga xam ni dañ leen di yabal ñu dem nat ci biir classe yi pour wan ñu xale yi fan la ñu ci mbirum lecture ndax bu ngeen ko seetloo lii fantu boo ko mënee maanaam da ngay mën àgg fépp lii nag lu tax mu am solo dafa nekk natt bu nga xam ni si njeexitalu projet bi la ndax ba ñuy door nattoon nañu xale yi fan la seen mën-mën tollu tey dañ ñu sant ñu ñëw natt pour xool fan la ñu toll ndax euh, lu tax mu am solo am na résultat yuñ ciy am partenaire bi dafay def ay versement maanaam daf ñuy jox ay koppar li nga xam ni nag moom la ñu jël ñun réewum Sénégal comme engagement mooy ca ndoorte la ba ci cëppaandaw li ñu yokk mën-mënu xale yi lu mat juróomi poñ nattoon nañu sa ndoorte la denc tey dañuy natt su yàlla defee ñu am juróomi poñ yooyu yokkute partenaire bi am na lu mu bëgg dina dugal li nga xam ni moom la war a dugal ci koppar suñu génnee ci tàggat bi dañuy yabal ñi ñu tàggat lu mat fukki fan ñu dem ci juróom fukk ak juróom ñeenti inspection yi nga xam ni ñoo ŋànk njàngum Sénégal ci daara yu ndaw yi donc dinañ leen may fukki fan suñu demee ci àll bi dinañ xool ay école yu nekk ci eh, eh, réew taax yi dinañ xool it école yu nekk ci gox goxaan yi ba tax na duñu bàyyi benn xale Sénégal. am ngeen yaakaar bu baax. waaw am nañ ci yaakaar ndax lii suñu liggéey la donc ci mbirum tàggat bi amul benn jafe-jafe ñi nga xam ne aussi mom la tan ngir ñu dem natt ñu ñu wóolu lañu daya tànnin bi jafe woon na wante yag nañ leen liggéey ak te ñi nga xam ni ñoo mom projet bi seen boppam ñëw nañu saytu banyu ñu glegi te liñ fi nyu euh, tek yi ñu teg méthodologie outils yeeg yëpp jumtukaay yeeg yëpp ñoom dal na seen xel moo ñun amuñu ben eh, jafe-jafe bu nga xam ni ngi suñu kanam